ma sama wàll rek lay defaan kon son ko daal ku ko gis gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram bi bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi ne bàyyiwuma sama wàll rek lay defaan kon son ko daal ku ko gis gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram bi bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi ne bàyyiwuma sama wàll rek lay defaan kon son ko daal gis-gis nga doomi xaram moom laa wax doomi xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi ne bàyyiwuma sama wàll rek lay defaan kon son ko daal ku ko gis-gis nga doomi xaram moom laa wax doomi xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi wu ma sama wàll rek lay defaan kooku ku ko gis gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bañ ne bàyyi ma sama wàll rek lay defaan kooku sori tuudal ku ko gis gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bañ. ne bàyyiwuma sama wàll rek lay defaan ko Sonko daal ku ko gis moom laa wax doome xaraam xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi ne bàyyiwuma sama daal ku ko gis gis nga doome xaraam moom laa wax doome xaraam ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi ne bàyyiwuma sama wàll rek lay defaan kon Sonko daal ku ko gis gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi. waaw salaamaaleykum. Euh, du live en ah, pub la rek bu ndaw bu ma bëggoon expliquer par rapport ak euh, euh, média bi ñëpp ñu ngi jug di attaquer Sonko expliquer naan président Sonko dafa dafa li mu def c'est grave li mu wax c'est grave léegi Moussa Cissé Lo lii mu wax nii. mais kan moo koy interpellé si lii kan moo interpellé Moussa Cissé Lo ci li mu wax nii jàpp nii di ko saaga te koo xam ne yow deful kii lan la mën a reprocher président Sonko lan lu mu koy saagaa nii yow nga ni personnalité nga si état bi nga nekk xool Moussa Cissé Lo ni muy saagaa nii di saaga nii est-ce que gis ngeen ko kan moo koy interpellé du presse du du média bi du journaliste du procureur du kenn lii fan la ko teg yéen lii Sénégal nii lañ koy bàyyi quoi nii nii la ñuy bàyyi Sénégal nii la ñuy bàyyi Sénégal ok anyway man dama doon wax rek ni pour ngeen xam quoi ni ngeen gisal seen bopp parce que gis bi aussi am na ci solo gisal sa bopp am na ci solo quoi c'est très important parce que lii dafa ëpp quoi ëpp na mais man dama doon def dama doon def benn pub bu ndaw rek ne samedi incha allah à partir de 20 heures de Dakar day am benn émission boo xam ni xam nga Clédor Sène dama ko fi invité woon bi ma ko invité ci rajo bi mu def émission boo xam dañ ko def mais émission bi ñu def yëpp dafa yemoon ci euh, dafa yemoon ci affaire rajo nekkoon affaire audio nekkuloon affaire image xam li tubaab bi naan une image une image une image vaut mille mots léegi image yi nag Clédor Sène def nañ émission boo xamante ni euh, émission bu am doole la boo xam dafa teg ay preview yu leer yu wane ni pour gën a dëggal ni suñu dirigeants yi ñun ce sont des criminels émission bi nag pour wax la ni émission baa ngi nii. mooy carte hydrocarbure bu Sénégal maanaam ak gaz parce que ñaar yooyu di ànd hmm? léegi ngeen gis nii yëpp chaque couleur benn société moo ko moom couleur rose bi ñaar yi Casamance ak Saloum Tende Oil lañ ko jox mooy Ovidiu Tende mi nga xam ne dañ ko tëj kaso Roumanie sept ans lañ ko condamné te nenañu ci lu kenn weddeegul ba légui jox na dix milliards fondation. Euh, Marème Faye Sall te dégguma ñom ñu def ci démenti wala ñu ñu lijjanti ko xam nga ñom ñoo mom ñaari bloc yi ki c'est toute la région de Casamance pétrole la jox nañ ko Thiendo Oil toute la région euh, du Sine et du Saloum pétrole la donte bloc bi blocu Saloum lañ ko tuddee ñu ko joxé 2013 en rose. rose waaw léegi euh, bi nekk nii ci digg bi. mooy euh, beige. c'est le bloc de Diourbel. waaw bloc Diourbel la. mooy mooy bi ñu def émission bu rectangle. donc bii ci kaw a kaw nii mooy bloc Louga bloc Diourbel bi AZ Petroleum lañ ko jox. bi ci kaw mooy bloc Louga euh, benn société bu tudd ci Five Oil lañ ko jox mais filiale mbutu tudd Black Stars moo signé contrat et contrat Black Stars moo ci nekk mais Black Stars mooy Tifafi Oil mom lañu jox euh blogu Louga bi Louga lañu ñuy blog bi mais bo xolé dafa englober région de Saint-Louis ba frontière Mauritanie ba ay Dagana ak Podor ak yooyu yëpp da ko englobé mais blog bi ñu ko tuddee Louga comprendre donc li moy li ci jéri ji l'ouvert, lu vert euh, région de Diender xam nga doon la fi wax Pire am na gaz ak yooyu ñu may wet léegi région de Diender et et de Thiès yëpp ci gaz la toog mais dañ ko jox société bu ñuy wax Fortesa waaw mooy les amis de Macky Sall la ñoom ñoom ñoom ñoom Marwa euh, euh, Pierre xam Hamé alors euh, léegi ci jéeri ji ci ci ci géej gi lii yëpp tam ay permis la plus de quatorze permis yoo xam ne jox nañu Oryx Petroleum jox nañu Oranto jox nañu Far Limited philips Woodside Cosmos Energy bëri nañu bëri nañu ak Elenilso, nous euh, avons ci def émission spéciale parce que ay israélien la. surtout émission bi nag ku ko bëgg seetaan samedi la allah laa koy dugal si page Abdou Karim Gueye ci chaîne Abdou Karim gay YouTube samedi inchallah à partir de 20h de Dakar 19h 20h de Dakar ngeen dem fa abonné Abdou Karim Gueye YouTube di ngeen seetaan suite émission bi lui prouver que ni nos dirigeants depuis Senghor à nos jours sont des criminels sont des criminels les gens acharné bi ñu acharné wu ci président Sonko parce que Sonko vous bëri ay secret yoo xam ne da ko xam ci pétrole bi ci le lu ñu séddoo bi Moussa Cissé Lo moom mbaam àll la ngeen baal ma nag waaye nag lii dafa ëpp Moussa Cissé Lo bam allah la waaw parce que mais incha na nañ ko xamal mon ko moom moom lañ war a rey fusillé ko moom moom mooy mbaam àll bu bon bi moom mom mom la wara ray té inshallah te rabi ñun ñi ngi fi la jeunesse sénégalaise di leen wan ni on est là pour le peuple sénégalais te inshallah président Sonko duñu ñu bàyyi benn golo diko di am accès si moom loolu dafa leer kon ñun pour sauver Sénégal ak xéxal Sénégal gis ko am amal jëriñ Sénégal jaral nañ suñu bakkel ku bëgg sétane ku bëgg sétane suite suite émission bi ñu def ak Clédor sen da ngay dem nga abonné bo démé YouTube nga abonné ak Abdou Karim Gueye samedi inshallah suite émission bi def na une heure trente minutes émission bi une heure trente minutes la li 2 minutes kessa la ko def mako dag pour wan len a peu près ngeen gis mang koy traiter dama ko wara dougal def nañ ko live que Clédor Sène indi ay preuve yu leer fu nek mu wax indi ay preuve li ci loi bi wax indi ay ay papier yu leer nañ ci depuis ban année lañ commencé exploiter ay vidéo yo xam dañu ñu exploiter exploité euh, kii pétrole Sénégal ni ñu ko doon exploiter ay preuve yu leer nañ nañ ñu filmer ko mak mom ñu toog mang koy def ci chaîne YouTube bi Abdou Karim Gueye samedi incha 19h de Dakar 20h dinañ ko dougal ci chaîne YouTube bi.

te ci nguuru Macky Sall lañ ko joxee chaque couleur benn société moo ko moom couleur rose bi ñaari yi Casamance ak Saloum Tend Oil lañ ko jox mooy Ovidiu la bi nga xam ne dañ ko tëj kaso Roumanie sept ans lañ ko condamné te nee nañu ci lu kenn weddeegul ba léegi jox dix-huit milliards fondation e. Marème Faye Sall te duguma ñoom ñu def manti wala ñu lijjanti ko xam ñom ñom moom ñaari bloc yi ki c'est toute la région de Casamance pétrole la jox nañ ko Tendo Oil toute la région euh, du Sine et du Saloum pétrole la donte bloc bi bloc du Saloum lañ ko tuté ñu ko joxé 2013. en rouge en rose. rose légui euh, bi nek ni ci digg bi. euh, beige. c'est le bloc de Diourbel. waaw bloc bu Diourbel moy mooy mooy bi def émission bu rectangle.

ku bëgg xam ci suite bi na nga ñëw fekk ñu si Abdou Karim Gueye chaîne YouTube bi parce que lépp mën ñu ko def live dama ko monté dagg ko pour mu am ay preuve yu leer parce que dañ ko defoon audio ñi ñi di kaas naan amul preuve amul lii amul laa léegi def nañ ko ay image yu leer nañ dugal nañ ko ci chaîne YouTube Abdou Karim Gueye samedi 19h képp ko bëgg seetaan na nga dem foofu nga abonné ci chaîne bi boo defee YouTube nga tapé Abdou Karim Gueye samedi 19h de Dakar incha allah di nga ci am preuve yu leer di nga seetaan émission ba mu jeex 1h30 minutes lay duré jërë ngeen jëf euh, après dinañ ñëwaat ci affaire Moussa Cissé Lo mbaam àll bi maam àll boobu noonu dinañ ci ñëwaat yëpp dinañ ci ñëw ñoo xam nit moo tax fu ñu toll dañoo jëfur ñoom ñëpp dañoo jëfur déggoo laay lijjanti ne instant dañoo a ñu am problème jërë ngeen jëf di leen jox dox dajee ba samedi incha allahu rabbi 19 heures ci chaîne YouTube Abdou Karim Gueye dama leen